leen ñu koy defee ak yéen di ànd ak yéen fii ci kat appuis TV mbokk yi tey nag ñu seet seeti kilifa gu mag Thierno Boubacar Diallo la askan wi xam ko ci li nga xamante ni moo di aajo doomu aadama yi bi saa su na rek damay am mbégte di am ak yow jotaay ma bàyyi rek nga nuyoo mbokk internet. a wa rahmatullahi taala wa barakatuh inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala wa ashhadu an la haɗay eh, ko noon min salmini jama on fof min lande ko fof e muɗum siɗo en jam meɗen e meɗen e jang e eh, meɗen jooɗi ɗo menen kadi komin jooɗani haray ko onon jama on e julɓe allah min fof kala mo andan ɗon hoore mon no mari sokola hino mari haaju haray so ari rekkiro ko allah andini men ko meɗen wawi mo andinde Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah muy kàddu yooyu am solo comme ni ñu koy faral di waxee rek saa su ne mbégte lay doon ci askan bi ñu am ak moom jotaay Thierno Boubacar Diallo kenn du dootu ko laajteeti ci li nga xamante ni mu di wàllum seet ndax saa su rek mu ngi ciy def ay preuve cheikh bi euh, wàllum seet jamono ji liggéey bu doy waar bi nga ciy def. seetu comme li ma la wax sànq rek moom dañu lay seetal si teere bi dañu lay seetal si course bi dañu lay seetal si euh, seetu tamit. waaw li ngay seetal si ndokk bi tamit waaye bu yàlla defee nga ñëw rek boo ñëwee rek bu ñu la seetalee rek eh, ñu xam sa aaja lan moo gàllankoor nga tere am li nga bëgg waaw bu ñu ko seetee rek dinañ xam après ñu wax la lan ngay lan ngay def pour nga mun a am ni nga bëgg yàlla defee nga def ko. Eh, yàlla dinañu def ni nga bëgg nga am ko si jàmm salaam. Mm-hmm. ba tey ci yeneen eh, affaire wala yeneen i mbir yi nga xamante ne saa su rek yaa ngi ciy dimbali askan bi nopp nopp bi nga xamante ne jooni jooni la waaye def la nga gis te da ngay àppal nit bés ba pare booleel ko ci soo gisul bul fay. ci wàllu waaw comme noonu rek comme noonu rek bu ñu la seetalee kay. comme li ma la dañu lay wax lii da laata ngay fay ñu il faut nga gis li nga bëgg. waaw loolu moo tax am na ñoo xamante ne dañuy ñëw fi ñu dimbali leen sax fekk amuñu dara ba yàlla def ñu amu dara indi ñu loo xamante ne comme oto yi ngay gis ne ak leneen ak leneen ah, loolu moo tooy indi parce que nit yi ngay dimbali yàlla kontaane dimbali la loolu moo ñu ñu toog fii pour ñu jàppale jaamu yàlla yi billaahi war rasul du question xaalis rek waaw mais loolu moo tax ngay gis nit ñin bu ñu leen di dimbali rek ñu indi fi lu ñu foogu rek loolu moo tax nga gis ku jom ku du dem rek da ngay wax man de am naa benn ustaas fi mu nekk rek xaaral ma yóbbu la parce que kooku moom def lay dimbali saay boo amee na nga indi ko waaw. ba tey ci nopp gi ñetti fan nga koy def mu soogee gis ñoo fay. waaw ñetti fan. ñetti fan amee na yoo xamante ne neuf jours comme ni ma la wax sànq rek parce que nit ki il faut nga seetu nga xam biddiwam fan la nekk boo xamee fan la nekk ak magaamaan nga door a koo wax waaw. bu euh, Boubacar Diallo la ba tey mbokk yi yéen ñi bëgg a jokkoo ak moom numéro téléphone yaa ngi noonu ci suufu écran bi waaye bokk na ci jafe-jafe ji nga xamante ne yaa ngi ciy dimbali askan wi di leen ci saafaral muy jigéen ji nga xamante ne dafa am jafe-jafe am doom Thierno. waaw loolu tamit dañu koy jàppale bu ñu la seetalee euh, am saafara lu lay bindal nga am na loo xamante ne da ngay sangu am na loo xamante ne da ngay tàkk si kese na yàlla laata ngay fay da ngay ñëw fii fekk yaa ngi ak sa doom. waaw su fekkee yaa boot sa doom xam nga loolu moom ku ko bëgg a moom. Euh, dina lay jox loo fooguloon sax parce que moom fooguloon dina am. waaw dañu am na ñoo xamante ne da lay dem ba tas yaakaare ah am doom. mais bu ñu la xoolaree rek. su kattanee la ñu la ñaanalee rek. di ngay am li nga bëgg parce que yàlla moom du jaaxale lu mu am. waaw boo ko ñaanee rek mu may la tamit parce que moom lu mu am rek pour ñuul la. waaw moom soxalewu ko. waaw comme noonu rek. comme noonu la Thierno Boubacar la mbokk yi ba tey waaye teneen ti nga xamante ne aussi euh, nit ñi nga xamante ne dañoo nekk Europe am jafe-jafe kayit wala bëgg li nga xamante ne tey moo di ay euh, passeport wala ci yeneen mbir yu bëri yoo xamante ne doomu asa askan wi koy soxla lan ngay wax ci. loolu moom loolu am na loolu am na kat yooyu loolu moom kattan yàlla am na ñaan bi ñu lay defal. bu ñu la ñaanalee loolu. kayit bi moom dañu lay loolu moo tax nga gis nit ñi xamante ne euh, dañu tase ak moom rek ah, man may naa la visa. waaw wala may naa la passeport. parce que ñaan bi bu nangee rek doo sonn loolu moo tax ma wax nit ñi ak xale yi ma ngi di ñaan nañu xool borom xam-xam yi. waaw parce que borom xam-xam yi am nañu réew yi. mais lu war la moo indi gàllankoor si réew yi di sonn xale yi di sonn parce que duñu gëstu borom xam-xam yi. waaw bu ñu gëstee borom xam-xam yi rek nu ñu bëgg dañu koy am si. été ñoom ñoom ñu jafe-jafe wala ci mbir yi nga xamante ne yaa ngi ciy dimbali askan wi bu baax a baax a baax euh, néew kattan bi nga xamante ni góor ñi ñu ngi koy dund ci biir néegu sëy yi te yaakaar naa ni euh, jooni jooni da nga koy defar léegi mu gis li nga léegi taqali ko li nga xamante ni mooy néew kattan. waaw loolu tamit am na comme li ma la wax sànq rek ku bëgg a doom bu dee da ngaa dem am jafe-jafe. Mhm. parce que am na ñoo xamante ne dañu koy dab. Mhm. am na ñoo xamante ne fekkee dañuy juddoo fekkee loolu am na ko. waaw léegi na loolu yëpp boo ñëwee rek boo ñëwee ñu seet la rek di ñu xam sa position lan la mm-hmm. bu ñu xamee mm-hmm. la moo tax indi loolu mm-hmm. eh, dañu lay wax sa sarax la après boo ko defee rek est-ce que la loolu yëpp dina dañ waaw. ba tey Thierno Boubacar Diallo ci li nga xamante ni yaakaar naa ne duggoon naa ci ak yow sànq yaakaar naa ni eh, góor gi nga xamante ni moom it dafa am jafe-jafe am jabar kookit yaa ngi ciy def résultat yu am solo yaakaar naa ne ren bëri na loo xamante ni tey. ñëw nañ nga wan ma leen wala nga wax ma nit ñi ginnaaw yàlla bokk nga si di tax ñu fas soxna ci at mi. waaw loolu moo gën a loolu kay tamit am na loolu am na comme li ma wax sànq rek. dee da bëgg a jabara am na ñaan bi ñu lay defal boo ko demee dangay am jabar si jàmm salaam. loolu moo tax ngay gis benn kilifa gis la rek oo la mu ne may naa la sama doom. waaw parce yàlla boo ko ñaanee bu ñaan bu nangee rek. waaw loolu da ngay gis résultat bu gaaw mais loolu yëpp na il faut nga ñëw ñu seet bu yàlla defee ñu xool sa mbir ah boo nga respecté tamit nga def ko di nga gis maanaam dama lay jox exemple bu gàtt rek comme missal loolu dafa mel ni téléphone rek comme sa numéro téléphone bu ñu la ko wooyee bu chiffre benn chiffre bu manqué rek ñu la jot waaye ba numéro bi jotee rek dañu lay jot comme ça affaire bi comme noonu la waaw waaw allah Thierno ba tey bokk na ci leneen li nga xamante ne danga koy faral di bëgg wala nga koy faral di ëpp di wax say client ñu ciy taxawee wala ñu koy bëgg muy wàllum sarax lu tax Thierno saa su ne rek muy faral di bëgg doomu aadama bi di génnee sarax. waaw saraka ah, xam nga nit lam mooy nit nit moom ñetti moo koy taxaw mbiram il faut nga def sarax il faut nga ñaan. nga gëstu borom xam-xam yi ñu ñaanal la ñu jox la tamit looy sangu loolu bu yàlla defee loolu lépp nga boole ko sa yaram jafe-jafe adduna dangay dégg nit ñi di ko wax may yow doo ko yegg loolu moo tax ma wax maa ngi ñaan leen ñaan kale yi yëpp nañu u xool borom xam-xam yi mm-hmm. nañu gëstu borom xam-xam yi nañu utu xam tamit mm-hmm. parce que defee nga xam même mu nga tase fii ak benn kilifa mu ne la ah, may naa la ah, saar nangam demal nga jàngali sa aaj yépp dina faj mais bu dee yàlla def na jàngoo loolu dafay metti loolu moo tax ma ñaanal ñi yàlla yàlla jàppale leen bu ñu mun a gëstu seen xel yi dellowaate ñu gëstu borom xam-xam parce que àdduna ñetti moo koy yore ñetti xam-xam moo ko yore wala gëstu xam-xam wala déglu borom xam-xam mm-hmm. waaw bu nekkee nit koo xamante ne doo gëstu xam-xam doo xool borom xam-xam doo bëgg borom xam-xam su boobaa da ngay nekk euh, koo xamante ne ku perdu la yàlla ñu yàlla musal mm-hmm. waaw parce que yàlla moo ñu mën a dimbali mm-hmm. waaye boo nekkee si yoonu yàlla rek yàlla dina fa lay dimbale waaw nit ñi yëpp dafay jàkkal eh, kii xoolal lii xoolal lii kii comme kii amul woon dara tey xoolal tey am na dara parce que yaa ngi si toolu yàlla bi yaa ngi yàlla moo lay jàppale moo tax ñu ñaan yàlla yàlla yàlla jàppale ñu jàppale adduna jàppale nit ñi yëpp mm-hmm. waaw macha allah Thierno ko jàll la ba tey mbokk yi ci uh, ba tey rek ni ñu koy waxee yéen ñi bëgg a jokkoo ak moom numéro yaa ngi noonu ci suuf waaye cheikh bi wàllum rab danga koy dindi ci doomu aadama ba mu set wicc mu tàqalikoo moom mu dem mu dem waaw rab tamit dañ koy ñaan comme li ma la wax rek boo ñëwee rek ñu xool la ñu xam la mm-hmm. bal façon parce que rabu tamit dafa bari façon waaw dafa bari façon waaye nag bu ñu la seetalee danay xam bar rab moo lay jàpp bi nga xamante ne mu ngi si garabu yi wala bi nga xamante ne mu ngi si nopp bi wala nga xamante ne mu ngi si xeer yi loolu yëpp rab yi dañu koy nekk mm-hmm. waaye nag bu ñu la xoolalee ba ñu xam tur rabb bi ba rab moo lay jàpp après dañu koy ñaan yàlla ñu tëggi loolu yàlla mun na ko yàlla mun na raw loolu yàlla mun nañu defal loolu bu ñu ko ñaan rek bokk na ci li nga xamante ne aussi xam naa ci loolu laay taxawee rek laataa ñuy tàggatoo mu di bayra bi nga xamante ne yaa ngi koy liggéey waaye rawatina bayra place bi nga xamante ni da koy liggéey ci liggéey bu mucc ayib ngir lan eh, jaaykat bu ci ne rek mën a gis ci boppam ci li muy liggéey mm-hmm. loolu tamit loolu am na loolu am na comme na li may wax sànq rek bu dee ko bëgg a jaay am na lay bindal nga sangu am na lay bindal nga takk sa place comme ngelaw bi lu muy yëngal comme noonu lay yàlla indi client loolu moo tax nga gis ñoo xamante ne nekku woon amuñ woon client léegi bu ñu yàlla defee ñu gisante rek jékki-jékki dañu ubbee ko parce que sa jaay bu dokee rek yëpp day daw waaye bu taxawee comme noonu loolu moo tax ma wax la sànq eh, nañu xool borom xam-xam yi parce que borom xam-xam yi bari na ci réew bi surtout ma Sénégal bi te dañu baax loolu da ngay gis koo xamante ne amoo dara boo demee si borom xam-xam nga wax ko mu xool la ba mu ñu la seetalee dafa lay dimbali ba nga am waaw ba nga am lu bari loolu moo tax ngay gis ñu bari ñu indi fii ay alal li nga xamante ne man kalaatewuma sax ñooñu ba nga fekk man fàtte naa leen sax depuis temps bi ñuy ñëw fii ma ñaanal leen wala ma jox leen dara ñu dem ba yàlla def ñu ne ah man de oustaz maa jour nangamu ay at nangamu gis nga yàlla def na ñaanal ma pour ma tukk naa dem na Europe am na lii ak lii léegi na man tamit yéel naa lawtu bi ak lii ma ne ah, lii de bari na ñu ne ma non non lii moom tuuti si man. Hmm. parce que alhamdulilah rabbil alamin demaay wàcc foofu rek ma am place. Hmm. benn tubaab bi jël ma yóbbu ma ma am liggéey. Hmm. xam nga loolu ma ne ah kon alhamdulilah parce que loolu tamit nit boo ko defaree dala mu ñoowo ba si yow ma ne ah ni nga ma defaram moom yàlla def na gis naa ko loolu moom loolu rek doy si nit waaw xam naa rek yaakaar naa ne kaddu yooyu am na solo ba tey rek si ni ñu koy waxee Thierno Boubacar Diallo la tey nag ñu seet si waat ko seqateeg moom li nga xamante ni moo di waxtaan Thierno xam naa li lay xaar ci client bëri na euh, njaboot gi nekk ci biir di la xaar bëri na dama lay bàyyi rek nga tàggatoo yan kàddu ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi comme li ma la wax sànq rek léegi naa laata lii balaa il faut ma ñaanal yi Eh, mo mi wastamin si sama mbokko puuli e eh, miɗo toroɓe haraɓe fof maɓɓe yoɓɓe eh, kala mo allah nani nani ɗum ɗo hara meɗen ñaagomo du'awu e e golle ɗin sabilillahi ɓay neɗɗo kay ko neɗɗo ko neɗɗo muɗum faw no woniri fof mo ma on koye woni yeeso on kadi wona yeeso ara joni noon mbala ɗum ara en waɗa e du'aw tornoɗen hoore meɗen tornen tagore nde fof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 وعلى آل صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مئويل العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما